yàlla kattanal leen liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati bu mu laal suuf ilaawu kalimatillahi l oliya loolu dong mooy liggéey bi loolu nag bis bañ a jëm jëwul fer bis bañ ci mën a jëm kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf liggéey baa ngoog liggéey baa ngoog ñaan dong lañ ciy dolli yàlla kattanal nu ak ñu mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëw ñëwutu ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi nay def te nu taawu ko bu mu laa suuf mukk ilaahu kalimatillahi oliya ba bis bi jiba ba bis bi jiba waaw ba bis bi jiba fa sëñ tuwaa di damoo ba bis bi jiba sa fa sëñ waa di damoo yàlla alhamdulilah yàlla yàlla boole ca noonee foofee muy damoo yàlla nu si yàlla boole ñun ñëpp nag képp koo xam ne xool sëñ tuwaa xool xool sëñ gi ca biir ñu yaa ngi bokk nga ci ñaan bi waaw ndam ndamam ndamam ndamam ëllëgam loolee yàlla nañ ci bok waaye yàlla na lu gën a ba itam ban liggéey bii liggéey bi ñu taawul ko ko ba bis biñ ci ba loolu rek lañu ñaan ci barke ci barkeem ci baaxam ci ngëneelam ci faggu jëfam nag ndax lépp faggu na